chers internautes yu enquête 221 dalate leen jàmm dalate jàmm ci seen bés du jour seen bés du jour li ci gën a fës bokk na ci audio whatsapp bu journaliste Zik FM bu mag bii di Ahmed Aydara Ahmed Aydara gannaaw coow li nga xamante ne nii jëloon na ci position ñeel affaire foncière bu Malika bi ci édition bii ñuy woowee tës ba ñu bëri apprécier ko Ahmed Aydara mooy xam leen ne dafa toog ba guddi rek am benn paa bu ko woo paa bi nag kilifa la ci kenn ci journaliste yi nga xam ne ñu ngi ci biir Zik FM bi mu présenté woo ba ñu waxtaan ñoom ñaar ci mbiru foncier bu Malika bii ndekete accident policier bii da ko doon enregistré ba noppi nag partagé ko ci whatsapp bi Ahmed dara ci tësu altinem ji mer ba futtu ñaawlu li ni mel ndaxte dafa jekk rek jot ojo bi comme ni ko ñëpp jotee ndeke paa bi bi mu koy au téléphone daf ko doon enregistré en tant que na policier te xamu ci dara Ahmed dara nee na bi mu ko waatee ak lieutenant policier bii di ko laaj def ne ko dama bëggoon rek information bi partagé ko ak ñi nga xam ne ñoom laa bokkal liggéey bi comme ça dossier yi nga bëgg yépp ñu mën la ko jox Ahmed ne ko mais le minimum nga tàgguma ma dama maa ngi lay que tey su ma defoon benn fuite wala ma def benn erreur rek ci sama communication mais mën nañ ma fekk si fii sax jël ma yóbbu ma donc nit ki boo koy enregistré da nga ko war a avertir teg ci naan ko am nga sens nag ndax sa doom fii lay liggéeyee ci biir Zik FM mais bu du woon affaire de collecte dinaa la tëj parce que li nga def nii tegoo ko ci yoon seen di jour bokk na ci coowuk chef de l'opposition bi nga xamante ne nii bëri na ci ñoo xam ne ñoo ngi ci dialogue national bi kenn la ñu joxoñ moo di Idrissa Seck ne moom moo nekk ki gën a taxaw pour nekk chef de l'opposition li ni mel nag juróon coow lool ndaxte waa Pastef dañu génn wane seen position ne d'accorduñu benn yoon ci li nga xamante ne di moom moo di choix wu ñenn ñi nga xam ne ñoo ngi ci biir dialogue national bii Idrissa Seck amul taxawaay bu baax bu ko permettre mu war a nekk chef de l'opposition waa Pastef joxoñ maître Abdoulaye Wade ne moom moo gën a jekk ci nekk chef de l'opposition coow li ne kur bari lool ba tax na waa Pastef mujjee génne benn communiqué di ci xamle ne mbiru coowu statut de l'opposition bi daf ñu sax yitteelul ndaxte amul benn importance bu muy jox sénégalais yi génneewul sénégalais ci seeni coono donc coow dong moo ci nekk mais amul benn sens ndaxte boo nekkee chef de l'opposition sa seefu bopp nga sa seefu parti wala sa seefu coalition donc amalul njariñ ñi nga xam ne ñoo di askan bi te sax nag chef de l'opposition buñ ko doon tànn ñoo ko war a tànnee ci assemblée nationale waa Pastef nii waaw ci assemblée nationale lañ ko waroon a tànnee xool ci opposition bi ñi nga xam ne ñoo fi gën a am taxawaay ñu tànn fa ki nga xamante ne nii moom moo di chefu opposition bi te nag loolu boo ko xoolee xool doo ci génnee waa PDS te nag seen père moo di maître Abdoulaye Wade kon moom dong moo yeyoo bi gën débat yi foofu moo am concertation yi weccantu xalaat ak sax votu yenn ci ay loi kon foofu la njariñ la nekk ku nekkul ci assemblée nationale mënoo défendre population bu Sénégal lii la communiqué bi xamle gannaaw coow lu bari li nga xamante ne nii ñoo ngi koy coow ci mbiru statut chef de l'opposition bi fii ci Sénégal ci jamono boobu fekk na Akon moom def révélation bu rëy ci point de presse bi nga xamante ni nii doon na ko amal niki démb rek Aline Batra Thiam di xamle ne film bu siiw bi nga xam ne ñoo ngi koy coow ci semaine bi yépp ndax acteur principal bi dafa mujjee génn àdduna moom film boobu ñuy oowee Black Panther Dakar fii lañ ko waroon a ci Sénégal waaye nag Sénégal dafa amul studio bu baax amul dëkkuwaay yi war a tax ñu tourner fi film bii li tax yéeneem yépp mooy defar benn cité boo xamante ni nii ñépp koy bàyyi xel ci àdduna cité boobu lay tuddee Akon City mu nar a nekk bërëb bu taaru bari lool njariñ ci askanu Sénégal ak sax bitim réew Akon di continuer di wax ni boo leen seetaanee bu baax film bi di Black Panther dañu changer complètement image u Afrique ci kanamu États-Unis film bi lépp imagination la sax boo leen seetloo américain yëpp ba ñi ci gën a ñor jamono jii delluwaat nañu seen dëkk ngir mën a jàpp ci liy taaral seen dëkk liy doxal seen dëkk yóbbu seen dëkk aussi ci beneen anam li tax ba moom Akon mu dellusiwaat fii ci Sénégal fas yéene jàpp ci liggéey bi Akon di xamle ni xool leen Beyoncé yàggul lool sax mu génnee album boo xamante ni c'est cent pour cent africain lañ ci sol yëpp fii ci Afrique lañ ko ñawee lépp lépp lépp fii la fii ci Afrique loolu di wane ne star américain yi sax jamono ji ñu ngi bàyyi xel Afrique bu baax te bii di Black Panther nga xam ne day wane beneen xar kanam ci biir Afrique et kon nee na Wakanda boobu mën na nekk Sénégal ndaxte imagination dong la loolu inspiration la pour que yenn stars yi ñu investir ci seen dëkk ngir mën a am ay Wakanda fii ci Sénégal et kon nee na la ñu waroon a tourner film bi ni mel waaye nag dafa amul benn studio bu méngoo ak bëgg-bëgg ñi nga xam ne ñoo doon tourner film bi mais na ko noon fii lañ koy tourner fii ci Sénégal seen bés di dem aussi ci wàllu lambu ak kaddu Malick Thiandoum bi nga xamante ne nii ñëpp ko xam ci wàllu lambu moom ñëw na ci départu président Alioune Sarr bi nar a jóge ko ci présidence su CNG bi Malick Thiandoum ne Tyson bien sûr mën na remplacer Alioune Sarr ndax am na leadership bi te mën na changer lu bari ci làmb ji te sax nag moom dafa am mission bu yaatu te moo di dajale ëhlu làmb te xaajaloo bi dafa bari lool ci làmb ji Malick Thiandoum di xamle ne statut président CNG nekkul rek nga nekk mbëru làmb mooy tax nga nekk ko te pour jox leen ci firnde rek xool leen football bi kan moo nekk président fédération sénégalaise de football xam ngeen ne du footballeur donc làmb ji la même chose ne boo nekkul mbër rek waroo mën a nekk président CNG waaye da nga war a nekk intellectuel ku cultivé loolu la Alioune Sarr woon ci CNG ndaxte ñu fa nekk ñëpp ay intellectuel lañu minimum kenn ku ci nekk am na bac plus 6 te noonu la amee woon ci arbitre yi ñu jeexalee seen bés di jour ak xale bu jigéen bi nga xamante ne nii dafa bëggoon a xaru ndax dañ ko convoqué woon ca police xale bu jigéen bi amul lu dul 19 ans moom daal bi ñu ko jàppee garde à vue ndaxte doon sàcc ci la bëggoon a xaru waaye bi ñu ko jàppee yóbbu ko pour téye ko garde à dafa commencé soppeeku di sànni ay xam ne àndut ak sagoom ci lañ ko bàyyi bàyyi négandiku maanaam may ko liberté provisoire gannaaw gi nag bi ñu ko convoqué waatee mu commencé def jëf ju jaaxal ñëpp naan ordre d'Isabelle commencé soppeeku ndax rek bañ a wuyu ji yoon ci Sénégal mbokk yi continué leen di abonné ak bàyyi xel seen chaîne YouTube bii di enquête 221 lu gën neex mu ngi ñëw bokk na ci chaîne série bu bees bii di Shop 221 Shop 221 nekk une nouvelle série téléfilm bu doy waar ngeen mën ko di suivre bientôt fii ci biir enquête 221 quant à moi maa ngi leen seen bés di jour suba incha allah